maa ngi nii nag xamal looy wax ministre maa ngi leen di nuyu ak seeni collaborateur nuyu tamit noo collègues maires doore nag kàddu gi ci lu jëm ci wàllum collègue bi jóge fi léegi ci Macky sal président fi mu la yóbbu jëlee lay éducation ak liggéey bi nga fa def loolu day que rek vision Macky bi nga xam a une courte vision parce que état dañ continuité la ñëpp apprécier li nga doon def mu indi fi ci ñi sa en tant que maire vous connaissant ñu ñëw lu jëm agents municipaux yi différence bi bëgg seen diggante ak yeneen agent yeneen employé wu état bi kooku peut-être ñaari ministres yëpp dinañu ci mën a tontu ci lu jëm ci wàllum augmentation salaire yi nga xam ne ñoom dañ leen cee ote lu jëm tam ci wàllum euh, état civil bi directeur monsieur Aliou Sall maa ngi koy état civil nag dafa ñu bëri dañ jàpp ne état central la am na ñu dem ba ba ko génnee ci collectivité teritorial waaye moom dafa nekk loo xam ne point boo xam ne ci biir maire yi presque ñëpp foofu moo nekk point bi nit ñi di gën a dajaloo officier d'état civil yu bëree bëree bëree bëree bëri monsieur ministre ay jafe-jafe yu méttee méttee métti la ñuy am ñu bëggoon nag sa collègue ministre de la justice nga dimbali ñu ci moom ngir lu jëm ci wàllum état civil bi ñu defaraat ko mais surtout informatiser ko parce que la ville de Guédiawaye actuellement am na ay doomu aadama yoo xamante ne nii ñoo xam ne ñu ngi judd rek ay quatre-vingt ay soixante-dix-huit ñooñu moom presque ñu ci bëree bëree bëri bu ñu bëggatee léegi ay kayit pour seeni doom sax problème la ñuy am am na ci ay directeurs yoo xam ne dañoo ñoo ñoom te li waral loolu mooy wàllum informatisation wu état civil bi ñu ñëw ci wàllum recettes yi ci communes yi xam nga communes yëpp nag monsieur le ministre dañoo tolloowul doole surtout acte trois de la décentralisation ville yi dañu leen a suqee suqee suqee suqee ville bu dem kay ba commune ëpp ko doole foofu kay y' problème ñun bi ñëwee au niveau de la ville de Guédiawaye loo laal ñu ne la Sam Notaire ko moom loo laal ñu ne la Gunaas ko moom loo laal ñu ne la Waxinaan ma ne waa ñun kon luñ moom da ngay déglu rek monsieur le ministre acte trois décentralisation problème mu recette yi nga xam ne moom la indi ville maire yu bëree bëri. collègue maire yi fi jaar wax nañ ko nee nañu fonds de dotation yi lañu yaakaaroon et mais fonds yoo xam ni voté depuis l' année dernière mois de décembre mu war a génn au plus tard février wala mars dem ba mois de novembre loolu nag du dara politique kese la comme ñoom Farba politique kese kese kese moo ko waral parce que Macky Sall ak ay yaakaar yaakaaroon nañ ne fonds yi bu génnee gars yi dañ koy politiser ci législative yi gagné leen fonds yi ñëwuñu te gagné nañ leen. ñu ñëw ci commandement territorial bi peut-être loolu ministre de l'intérieur am na ci part de responsabilité je l'ai mais su ma waxee yàlla rek te yàlla tax dundatuma ko les préfets et les sous-préfets léeg-léeg ñu zélé léeg-léeg ñu dugal ci wàllum politique te ñoom waruñoo politique seen yoon nekku ci daanaka ay takk der lañ le commandement territorial leur relation avec les maires monsieur le ministre ñun bëgg nañ loolu nga jàppale ñu ci au niveau de géejawaay nag maa ngi gis farma di la jéem a accaparer yooyu yow sa famille yëpp géejawaay liñ dëkk sa famille yëpp géejawaay liñ dëkk waa géejawaay BRT bi bëgg nañ ñu suturaal ñu waa statut ak ministère jàppale ñu actuellement géejawaay souffre lu baax la kenn critique wu mais fii ñu toll nii nii nii nii nii nii nii nii nii gis nga dans le cadre du précole nous payons tous les mois 30 millions 10 mois 300 millions Nous dindi ñin suñu publicité ak yépp te ba fi indemnisé wuñu joxuñ dara top nañ seen ginaaw lén nak fa lañuy mujjé président néna na nañu gaaw BRT bi way arrêté travaux yi travailler ñuy def nous ñu nous ci inondation ak assainissement monsieur le ministre inondation ak assainissement nous, c'est l'État mais Macky 750 milliards yi mu jël def ko ci et solutioné vous dara Nous ko jox jox collectivité territoriale yi décentralisé ko ko fa ñu dal di koy xam nga yow. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Touré Ndiaye. Seydou Dianko se prépare.